ñoo leen di li ci yéene kaay yi mangoog euh, yéenekaay yu bëri xëyandoo tey wàllu candidature mu ñeel élection présidentielle yu 2024 euh, gi ñuy lam-lamee ci jamono ji yéenekaay bi ne tey conseil constitutionnel jàpp na ne fukki candidat ak juróom-ñeent ñoo cay dagaan baatu askan wi euh, bokk na ci kenn ci ñoom di Bassirou Diomaye Faye jotagum na li nga xamante ne fichier électoral ba bu ñu sukkandikoo ci amadu Ba di mandataire am mu ngi ci yéenekaay bi di Walf Quotidien yeneen i mandataire jotagunu fichier électoral goo xamante ne yite woon nañ ko gindi ci candidat yi yéenekaay bi ne doon lu metti lool ñooñee di mandataire joxoñ baaraamu tuuma direction générale des élections ñu bari ci ñoom dem nañ fa waaye nag jotuñu fichier électoral bi eh, kenn ci mandataire yooyu le di mandataire u Malick Gakou xam ne yëf yi par parloog yeneen ak yeneen def ci am mu ngi ci yéen kabi di eh, source a yéen kabi di critique ne élection présidentielle eh, dañ ko amal te Rose Wardini du ca bokk ñañu jot a recalé duñ ca bokk plateforme aar suñu élection xam na yooyu le woote war war ñu ci tendefal nañ ko amal ñetti fan ci weeru mars mu ngi ci yéen kabi di critique 24 heures ne ne aar suñu élection daanaka ñetti fan ci weeru mars moo leen yitteel moo leen soxal ci jamono ji ndax élection yi kenn waru ko randal mu sori mu ngi ci yéen a kaabi di 24 heures Soleil mu ngi ñuy dégtal ak taskatu xibaar yi maître Aïssata Tall Sall di jëru gi ñu dénk euh, Sénégal xam le ne yoon jot na may afia lu toll ci ñetti téeméeri euh, détenu ak ñeent fukk ak ñeent ñooñu nag liberté provisoire la ñu am bàyyi négandiku am na ña des ca ba ñu ngi càmbar ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ce cabinet ña nga xam ne ñoom la ñu takkal lam maanaam euh, bracelet électronique euh, ñooñee seen lim euh, toll na ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak mu ngi ci yéen cabinet di Le Soleil yéen cabinet di Le Quotidien xëy duñu dektal jëruñ gi maître Aïssata Tall Sall wax na li tax ñu bàyyi yooyu les détenus xam le ne njiit réew Macky Sall ak nguuram dañoo bëgg jàmm am ci réew mi waaye nag loolee tekkiwul ne lu waay neex def bokk na ci ne képp ku ñu xool sa xamle ne lañ lay toppee daanaka dara amu ca mun nañ la bàyyi nga ñibbi waaye nag bokk na ci ci jamono ci ña ñib si newoon ca bitim réew gàddaayoon réewum Sénégal nañu xam ne ba léegi yoon mu ngi leen di tënk euh, seen dossier mun nañ ko càmbar saay sune ndax Sénégal réew mu yoon la euh, te itamit euh, njiitu réew Macky Sall def cee woote jàmm waaye nag yëf yi waruñu cee laxas lenn lu dul politique amu ca mu ngi ci yenn cas bi nga xamante ne mooy le quotidien bés bi le journée bésub démb la jot a leeral ci ay dossiers yu bare bari Euh, jëru ngi ñu dénk wàllu ko euh, wàllub yoon xam ne ne Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane sunko euh, bu ñu bëggee am afia loolee des na ci wàllub yoon waaye nag li tax ñu may afia yenn ci détenu politique yi dañoo saytu seen dossier waaye nag ñibbi nañu seen kër waaye say su ne yoon mun na dogal jëmee ci ñoom mu ngi ci yéen a kaabi di bés bi le jour réew mi quotidien xëy ko dalal maître Aïssata Tall Sall dikkaat na solaat trop avocat am ngir taxawu mu Sénégal ak leeralal nguur nguur geek matuwaay mu jël ci dossier Sonko ak Ousmane euh, ki ngi di Bassirou Diomaye Faye ne mun nañ leen a libéré waaye nag lépp a ngi aju ci seen dossier yoon bu ko càmbaree ba noppi am na ci ñoo xamante ne yoon jot naa càmbar seen dossier ba bàyyi leen ñu ñibbi seen kër waaye nag amuñu liberté totale ñu ngi ci bàyyi négandiku euh, di leeral yoo xamante ne joru ngi jot na ko indi ci biir yéen a kabit d'évidence euh, xam le ne yoonub Sénégal ci jamono ji jàmm ko tax a jóg rawatina njiitu réew mi Macky Sall fexe ba jàmm am ci réew mi bokk na ci li tax ñu woyofal kaso yi yéen a kabit di Sud Côté quotidienne ñu bari ci ay détenu politique la ñu may afia toll nañ ci ñetti téeméer ak ñeent fukk eh, ñeent bokk na ci ñaari téeméer ak eh, juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo desagum ci kaso yi ñu ngi càmbar eh, seen i dossier ne bay négandiku yi ni mel nag politique laxasu ca benn yoon joru ngi moo ko leeral mu ngi ci yéene kab yi nga xamante ne mooy les échos yor-yor bi xam ne ñu bari ci ay détenu politique ne woon ca kaso Rebeuss dañ leen fa bundu xatal métital leen ñoom ñu bari ña yooyu les détenus politiques euh, gannaaw bu ñu génnee kaso xam le ne fa ñu tegoon seen tànk euh, duñ ko teggi benn yoon ci projet PASTEF euh, ku demee ni Aïssatou Gueye wax na Toussaint Manga wax na ak ñeneen ak ñeneen xam le ne xel xalaatul ñu deltu ginnaaw ci seen mission yéen a di las ne of nag mission gën na am doole ndax njiitu réew Macky Sall salaat na seen mandat mu ngi ci yéen a kaabi di las yéen a kaabi di le mandat xëy duñu dektal lu aju ci tonni mbalit mekk jafe-jafe yi nga askanu Sénégal di dund leneen ci xibaar mu soxal wàllu làmb ji ana lu sooke ba léegi géejawaay amul kenn ku fa mun a wutu Balla Gaye 2 ci mbër ya ne ca géejawaay ci mun bëree mag mun bés ci wàllu làmb